وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا ربي زدني علما ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر wal taatifi bi nadrati biha anaalu watari bokki jullit yi ñi déglu di ñu xerewlu di ànd ak ñun ñi ngi yëkkati kàddu di ci jiital sant buur yàlla di ko ñaan mu dollee julli ala qiblati l arwaaxi di mawlaana muhammadin ak waa këram ak i ak soxnaam ak njabootam ga salaatu ak salaam boo xam ni dana baawaan di xëpp ba àgg ci képp ku teg sa tànk ala siraatil mustaqim yàlla na bur yàlla boole ñu ca di ñaan sunu boroom itam niiri xéewalam ya ak niiri barkeem ya ak niiri ngërëmam ya yàlla bu mu deñ di ko dotti ba faw ala darixi cheikhina wa sanadina wa wasilatina Sheikhina Abil Abbas Ahmad Tijani ak mbolé khalifam yak muqaddamam njabotam njabootam gaag taalubeem ya yal bur yalla bolé ñu ca soppeem ya ca dëgg e di ñaanan sunu borom tabaraka wa taala lolu nga xamni modi katani ru, yam dan roof wali yu yalla ya ak leer yu am solo ya nga xamni danako gand ci ruuxu nitu yalla ya yalla bu mu deñ diko ko roof ak di gand ki nga xamni soob na yàlla muy sunu bundu ki Seyd Ahmada Tijaani radiyallahu anhu di as sayid al cheikh alxaaji Malick Sy yal na bur yàlla dolli ay leeram bur yàlla taas ñu ci ay barkeem tabaarakallahu mbokk yi ñu ngi nuyu képp ku ñuy déglu ci baatub asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yal na bur yàlla boole defal nu ko. dunyan wa uxraa tabarakallah ni ngeen ko xamee rek mbokk yi ñu dellu si waat ànd ak yéen ci xilaasu dahab fi siirati xayri l arab li cheikhi al aalimi al allaama ad darraka al fahaama al xaaj malik si tabarakallah yàlla dogaloon nañu jeexal fasl bu njëkk ba muy al faslu al awal fi manshai xalqihi sallallahu alayhi wa sallama tey nag ñu ngi jëm ci al faslu thani fi zikri abaihi sallallahu alayhi wa sallama wa ummahatihim tey leeral ñaareel gi deuxième chapitre bi góor gi mi ngi ko def ci di tudd di jàngat ak a leeral way juram yu góor ya moom sallallahu alayhi wa sallam wa ummahatihim ak seeni nday ñoom woy juróom ya waaw noonu nga koy waxe woy juróom yu góor yi ko jur ak seeni nday ñoom woy juróom yu yu góor yooyu kon mi ngi jàngat baay yu góor yi ak maam yu jigéen yi ak kay mbokk xam ngeen loolu ñuy wax askan dafa am solo lool ci nit ba tax yàlla subhaanahu wa taala xool askan wi gën gën a set gën a laab ci mboole askan yi ak giir gi gën ci giir yi ak làkk sax nag wi gën ci làkk yi mu génnee ca askan woowu génnee ca giir googu génnee ca làkk woowu ki nga xam ni moo gën ñëpp di yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam contextuellement loolu nañ ko bàyyi xel askan dafa am solo ngir layile ko bàyyi yim bëgg a jàngale ñoo doon ñan ak kenn ku ci nekk lan moo doon sa siira danañ ci ñëw insha allahu taala wax leen kenn ku nekk lan moo doon jaar-jaaram ci maami yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu dut ni rek bëgg ko jàngat noonu ci diw moo jur diw diw moo jur diw diw moo jur diw déedéet loolu dafay xaw gàtt tuuti cheikh alxaaji malik radiallahu anhu dafa wax ni yaa xaaisa al bahri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 كنانة وخزيمة ومدركة إلياس مع مضر الحمراء سرهم عدت نذارا مع الدم من يجاوز عد نانا فتكذيبه قد جاء من العلم قد جاء من العلم أي من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكنى بالعلم وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العلم فالرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم قد جاء من العلم يعني قد جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في حق نسبه كذب النسابون من جاوز عدنانا لكن الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه مبكي دفني إيه، ci walu njàngat ak jàngale cheikh al khalifa radiallahu anhu bi góor gi njëkkee bind lam njëkkoon a tëral moo doon yaa xaaid al bahri lil asdaafi indi asdafun biha durra ala min al jalam ah comme moom ak sëñalin radiallahu anhuma ñoom la cheikh alhaj malik joxoon ndigalal lépp lu mu taalif ñu seet ko saytu ko ndax moo leen jàngal te xam na seen tolluwaay ci xam-xam cheikh al khalifa xamna ni même buñ ñu waxee yaa al bahr yow mi xuus géej déglul nag yaa xaaidal baxar loolu la góor gi njëkkoon tëral yow mi xuus géej lil asdaafi ngir am ay sadaf muy mbubb mi ëmb mbubb mi ëmb wurus yonent bi wurus la sallallahu alayhi wa sallam maam ya ko ëmb muy bàyya moom la nam ci sadaf mu ne indiya nekk na fi man cheikh alxaaji malik lolu engagement intellectuel la bokut ak responsabilité intellectuelle nekk na fi man engagement la Bokul ak bune ati ah, bi tartibha fi xusni muntadimi dedet Bokul koku responsabilité la parce que bone ati ah, dina indi ba pare nga indi la nga wax te ay borom xam-xam jitu la ay borom xam-xam nekk ci sa gannaaw te la nga wax ila yawmina hadha ken munu ko yengal waxuma la diko dindi koku kep ku jokku ci yow mba mu lay bege warna fexé ba jang mu parce que c'est très important ndax waxin yi dafay am solo aati man Maodo danaa indi bamir ji mu delloo ko ci boppam yaa raisal bahri li lasdafi indi ya bamir gi yaa googu mu delloo ko ci boppam yaa la ñuy wax yaawu mutakallim al yaa lil mutakallimi comme bu yàlla waxee ci alquran ni inna ibadi yaa googu xëcc yaa gi loolu la ñuy wax yaa ul mutakallimi day dellu ci kiy wax ok yaa raisal bahr lim njëkkoon a bind mooy yaa xaaidal bahr déglul bu baax yow mi xuus géej lil asdaafi ngir am mbu mbuus yi nga xam ni moom mooy ëmb wurus ñu koy wax sadaf indiya nekk na fi man mu engagé wu moom Cheikh Alhaaj Malik radiallahu anhu intellectuellement indiya nekk na fi man man Maodo asdaafun ay bayit yoo xamante ni bii ni dañoo ëmb lool mën na laa génneel la nga bëgg mu dellu ci sadaf ya nga xam ni mooy bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam te kat bihaa nekk na ca biir sadaf yooyee durratun wurus comme xas naa tudd wurus Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu dal di taxaw nak dal di ni ko ah, papa man dama jaaxle parce que dama xam ni wurus ki munu ko am ndax wurus du ter ci tefes te geej bu fekke dang cey cay munu am wurus waye bo beugé am wurus faw da ngay nuuraan fokk nga nuur dem ba ca bir pour meuna am wurus kon wax ji pour mu meuna a approprier par rapport à contexte bi il va falloir ñu changer batu ya khaida te def ci ya ghaisa fofu nak ñu bari dañuy jaxé nan Cheikh Al Khalifa moko soppi soppi wuko daf ci attirer attention wu Cheikh Al hadji malik Seydi Hadji Malick moo soppil bopam non la mbir yi tëddee lu ci ne nañ ko teddé nañ ko waxé namu démé demee ok foofu nag ngay xamé xam-xam ak dayowu Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu mais xam nga lool yëpp dafa am lu ci nit di déggé rek moo lay xamal ni Seydi Hadji Malick boroom xam-xam la ci naka la théorie de la résignation bi nekk ci moom te dafa jafe trop léegi ci doomu soxna yi mooy nangam bii de baax na waaye wax dëgg yàlla logiquement mën naa gën baax na waaye mën naa gën xam nga yaa xaa idal bahr baax na waaye dëgg-dëgg nag contexte bi nanguwul yaa xaa idal bahr yow mi xuus géej ba pare nga wax wurus wurus kuy xuus mënu ko am parce que wurus du teer wurus ki nuur moo ko mën a am parce que ca taatu géej lay nekk loolu moo tax Cheikh Al Khalifa radiallahu anhu ba mu ko waxee si Daaj Malick li ñuy wax la théorie de la résignation mooy ñu wax la dëgg nga xam ni dëgg la nga nangu ko c'est très important ci borom xam-xam loolu moo tax jamono bu nekk mané len leen Malik ci mbindam personnalité am daf ci feeñ mom mo don kan taxawaayam dayom jikkoom tolluwaayam lepp day feng ci waxinam ak mbindam kon nak mbok yi Cheikh Al Khalifa lol la wax Malik radiyallahu anhu bayam bobu gis nga ñooñu kenn amul sen pay de parce que xéti dikka yoyu sew-sew yoyu kuku ko topato man ko lijeenti mbok yi lol du de loolu nekkatul xam-xam rek de cest à leneen la waaye nag naka jekk arab yi daan nañ ko wax de ci ngay xam ni littérairement Cheikh Al dafa taxaw nga dagay ngay dégg ñu diw daa taxaw ci matière sangam waaye sëñ Babacar radiallahu anhu littérairement dafa taxaw ci côté littérature arabe parce que arab yi dañ daan wax yaxuusul bahra man talaba la ali yaxuusul bahra man talaba la dama ni Serigne Babacar Sy ci bopam dafa taxaw littérairement li tax mu meun am setlu bi ba man def rapprochement xamni ki kii ak ki nour kenn ku ci nek dafa am lol mom nga meuna am ci geej ki xuus yuter, naa fori jeun yu ter mën fori salte yu ter waye ki nour nak ci bir geej koku mo meuna am wurus lolou littérature la parce que naka jëkk arab daf dan wax muni yahousu dana nour dañ koy firee firé wul الخوض موي في الخوص الغوص موي في النور بادي بوكوني دانيو جيغيو مي بوكونيو فذرهم في خوضهم يلعبون وقل فذرهم في غوصهم يلعبون بكل بقي اوكي سو كرافي نك آه، نغا غيسني عرب دانا واخ يغوص دانا اوس من غاصه بي في رخوصنا بوكلك خاضه waaw bi bii firi nuur na xaasa nuur bokkut ak xaada bii firi xuus bokkul de bokkul bokkul de dégg nga yaxuusu dana xuu dana nuur dana nuur albahra géej man talaba ka nga xam ne mooy sàkku alla ali wurus arab yi daanañ wax loolu kon nga xam ni du point de vue littéraire Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu dafa taxaw loolu la bëgg wax loolu moo tax mu ni Seydi Hadji nañ taxaw seetlu foofu waaye Seydi malik Malick soppi ko daal di ni kon nag yaa isal bahri yow mi nuuraan géej kay bàyyi booba baax yaa isal bahri yow mi nuuraan géej lil asdaafi ngir mën caa génne loolu nga xam ne moo di ay sadaf muy ay mbuus yi umb wurus indi ya nekk na fi man asdafun ay bayit yoo xamante ni bii ni danaa la ca ngembal danaa la ca dugalal lol wurus la woo xam ni soxlaatul ngay dem di nuuraan géej pour am ko géej gi fii dafa am lu mu ci namm listiaara la yaa raisal bahr yaani yow mi nga xam ni yaa ngi xuus géeji xam-xam yi mënatoo nelaw guddi mënatoo nelaw bëccëg fu ne yaa ngi fay seet di defi rapprochement ak di tiire di wërlu di wérlu pour mën a xam maami yonent bi alayhi salaatu wassalaam géeju xam-xam googu nga xam ni jamono bu nekk yaa ngi koy xuus yow gëstukat bi ak di ko di ca nuur waaye waaye soxlaatu ko jaratu ko ndax li sore woon yëpp man Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu jegeñal naa la ko te loolu yamul ci xilaas bi kese mboole téeréem yi la loolu tam na leer Taysiir bii ngay gis lu ci nit ñi xamul bayit bu ne téere la waxuma ay bayit laa wax bu ne téere la gis nga igfir li ummatihi warham bi ummatihi wastur laha wajburanha rabbi allahu Siraj Malik njëkk ko wax de dafa am fu ko jëlee indi ko jegeñ ko parce que téere boobu mu nekk boo xifatul ci ji jamono kenn moolatu ko te yàlla defal na ko tawfiq bi te xam ne njariñ la ca la nekk ci loolu mu xëcc ko indil ñu ko yamul ci indil ñu ko teggu ko def ko bayit Siraj Malik day moromu ñi ibnul farxun alqurtubi moo tëju xalwa di ñaan yàlla baat yu mu yóbbaloo ngir ëllëg ca kanam yàlla yonent bi tinu ko ci ci ci ci ci lépp loo xam ne lu ko fay tiital la yàlla yabal malaayika ci moom ñu ko soo boo demee neel ibnul farxun alqurtubi dégg nga ko na na li may wax mi ngi ci kunuudul asrar dem leen ci téere boobu di ngeen fa fekk li may wax mu ibnul farxun malaayika mi bi mu dikkee daf ko ni sa borom nee na del wax allahuma agfir ummata muhammadin allahuma aslih ummata muhammadin jeex na allahuma yow buur yàlla igfir na nga na nga na nga na nga muur mbalaanum sutura ummata muhammadin parce que baatu magfira waxoon naa leen ko ca jawahiriya li muy tekki mooy mbuur mbalaanum sutura dégg nga ummata muhammadin ci xeetu yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam allahuma yow buur yàlla aslih waa ji yéwénalal ummata muhammadin xeetu yonent bi alayhi salatu salaam loolu ibnul farahman al qurtubi lañ ko wàcce ci moom biñ ko wàccee ci moom nag moom it mu am mbaax gu toll ni am ñu ko jot wax ba ñoo ñëwee daal ci ci ci ci ci dundam bi mu génnee àddina ñu saxal loolu bindu ko mu nekk bokk ci taarixam ak siiraam Siraj Malik radiallahu anhu bi mu bi bëtam tegoo ci loolu mu daal di ni ñuut loolu indi daal di ni igfir li ummatihi warham bi ummatihi wa laha wajburanha rabbi allahu non seulement moom Siraj Malik radiallahu taala anhu fekkoon na lu sori mu jegeñal ko kon qarraba jegeñal na yamul ci jegeñal mu leeral fa awdaha yamul ci ci ci leeral waaye mu yok fa zada yamul ci yok mu teggu ko bayit ngir ñu mokal ko ki day moroomu kenn ah déet wax ji kay limu wax allahumma ighfir ummat muhammadin allahumma aslih ummat muhammadin siraj malik batu maghfira bi soppiwu ko ighfir li ummatihi legi nak xolal lim ci wax warham bi ummatihi wastur laha wajburanha ñet yi yep mu yok ko ci fek mi ngi firi batu allahumma aslih yewenal xet yonent bi moy lan moy waghfir laha nga jéggal ko yow yàlla dégg nga ko allah igfir li ummatihi warham bi umma nga yërëm ko moom xeetu yonente bi alayhi salaam wajburanha wastur laha nga nga nga suturaal ko moom xeetu yonente bi alayhi salaam wajburanha lépp lu ay lu di ay damm dammam ay insuffisance am yow borom bi tabaraka wa taala nga tabax ko ba mu jub xocc wajli kii waxul waxu waxu waxu waxu yii nii xoolal xeetu yonente bi yëpp lay waxal kon nga xam ni kon kii wax dëgg yàlla dimension bi mu am dimension bu universelle la ci cadre xam-xam waaye dimension bu universelle la ci cadre yéene bi mu ëmbal képp ku dib jullit loolu nag incha allahu taala bu yàlla defee tawfiq ñu sori tuuti ci xiraatu dahab bi daañ jéem seet nu ñu waxtaane ci beneen programme ci wàllu taysir bi ñu firi ko même bu fekkee ñaari enregistrement sax lay nekk ñu fiiri ko parce que taysir taxu ko yaatu lool ci ci ci ci forme bi waaye nag hmm, foo bi yaatu na de dégg nga kon nag mbokk yi Siraaji Malik radiallahu anhu mi ngi wax ci géeji xam-xam yi képp koo xam ni yaa ngi cay xuus ngir mën caa génne lu leer ci askanu yonente alayhi salaatu wassalaam jaratu ko coono boo ca naroon a daj dajal naa la ko moo tax billahi alladi laa ilaha illa hu gis nga li ñuy wax dëgg la de nan maam Maodo moo yóbbu géew loolu du ay waxu caaxaan daf ko wax indiya moo tax man la lii engagement intellectuel la indiya nekk na fi man waa léegi mag mu dul fenn wax la lii yow ngay dem di taxawaalu ci àll bi di dem ci réewu naar yi nan da ngay jàng leneen looy jàng foofu indiya nekk na fi man man léegi loo bëggati léegi nag mu des après ginnaaw bi mu la waxee lii nag nga dem nga jéem a toppatoo non seulement moom moo doon kan moom si daaj malik radiallahu anhu bala ngaa jàng téere bi demal nga toppatoo kii di wax man man nekk na fi man moo doon kan gis nga bës boo xamee kii wax lii lum la waxati wallahi alazim waxuma ci tag bu nee waaw waaw la bu nee déet déet la parce que da ngay xam ni si daaj malik tolluwaayam ci yàlla ëppante nag muy wax indi te fekk la muy wax demeewul noonu hmm. waxuma tolluwaayam ci xam-xam de tolluwaayam ci yàlla laa wax ëppante nag mu nan indiya te fekk laysa indahu shay hada min baabil muhaal kooku mënul nekk radiallahu anhu fa jadahu llahu anna wa an jamii al umma al muhammadiya xayraati dunia wal axira maa ngi ñaan sama borom mboole yiwi àddina ak yiwi alaxira yàlla bu mu deñ di ko fay te wuutuñu ca fay ga sunu maam Cheikh Alhaaji Malik radiallahu anhu ngir lii mu ñu liggéeyal xoolal ji wax ndeysaan indi nekk na fi man jëm xam nga varf ji varf xam loolu la tubaab di wax complément circonstanciel de lieu nekk na fi man man Maodo mooy kan nag loolay wax ji <laughs> Maodo mooy sëñ Babacar Maodo mooy Abdoul Aziz eh, eh, Maodo mooy Cheikh Alhaaj Mahamadul Mansour Maodo mooy Cheikh Mahamad Cheikh Alhaaj Mahamadul Habib Maodo mooy sëñ Hadi Touré Maodo mooy Mame Rawane Ngom Maodo Maodo mooy Maodo mooy Maodo mooy Maodo mooy hmm. indiya ha ok léegi nag bayit bi kon yaakaar naa képp koo xam ni am na ñàkk yar wala ñàkk worma ju toll ni Siraaj Malik amul woon université Siraaj Malik amul woon daara yaakaar naa ku bàyyi xel baatu yaa ghaisal bahri lil asdaafi indiya su fekkee jàngat nga bayit bi xool métaphore yi ak comparaison yi muy def dëgg-dëgg di nga xam ni waxuma la université waaye bu fekkoon am na lu ëpp université ci cadre njàng ak fu ñuy jàngee ak di fa taataane xam-xam bu yeboo nga ni si daaj Malik radiallahu anhu amoon na ko te daf koo wax it nag xam nga mbir yi aussi soo koy jàngat da koy jàngat intellectuellement te bañ koo jàngat ak coow ak moom suma mbokki daara yi ñoo ko moom kon nag Cheikh Alhaaji Malik radiallahu anhu wu ni indiya nekk na fi man man laa wax man Maodo asdafun kay ay sadaf boo ko déggee moom mooy mbuus mi nga xamante ni bii ni moom mooy umbu waaye fii nag da koy fiire mboole xeeti xam-xam yi nga xam ni moom mooy saytu fànnuk siira la ca wér mu mën koo wérlu mboole xeeti xam-xam yooyu nekk na fi man cheikh alhaaji malik radiallahu anhu waaw effectivement parce que xam nga koo xamante ni bii ni mi muy waxee soo ko seetee parce que mbokk yi bis bu nekk ma wax leen ni gis nga taalif téere ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu jiitu Seydi Hadji def ko bari na loolu on a disconvient pas kenn werantewul ci loolu xam nga wax ji lan la hmm. taalif goo xam ne li bayt yi da nga koo nose misaan bi baax maanaay jub ci baxru boo xam ni arab yi musuñu ci taalif ci yon arab yi laa wax je bien mes mots hmm. musuñu ci taalif yonent bi alayhi salatu wasalaam ci fànnu siira lu jige juróom benn téeméeri way waxuma laat nga naan junniy way lu te ci baxru bii muy baxru basit waaw ah, waaw du ma denc leen ko fàttali de ñeenti tafila yooyu mustafilun failun mustafilun failun benn benn benn chatru dem mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun Maodo rek de waaw ah, loolu nag dafa am lu muy firi ah, xam nga bu bu kenn nekk bu naan ay Maodo moo fi raw ñu yaakaar ni nit ñi dañ ko wax parce que dañoo kontaan rek wala seen xol dafa sedd dañoo lekk ceeb ba seen biir fees non lu loolu delloo ci cadre xam-xam ah. su ko defee kon nag nee na indiya nekk na fi man asdaafun mboole xeeti xam-xam yi nga xam ni ñooy ñooy saytu fànnuk siira ba mën caa wérlu lool buñ la ko waxee ci maami yonent alayhi salaam nga nangu ko loolu nekk na fi man Cheikh Alhaaj Malik radiallahu anhu waye nak yeugal ni biha te nek na ci xeeti xam-xam yooyu ma la wax nak dur wurus wo xamanteni bi ni te wurus wo du kenn kudul yent yàlla muhammadin alayhi salatu wassalam wurus wo xamni ala mo gëna kowe ala mo gëna cher parce que fi siraj malik radiyallahu anhu di nga fekk leg leeg ñu ñu jëf axla axla mo gëna cher waye fofu du bax moy li ma doon wax legi ci problème contexte parce que boo nee ëxlaa moo gën a cher minal jalam ci weer weer kenn du ko jaay dañ koy séenu ndax dafa kowe kon lu kowe lañ wax lu ko gën a kowe lañuy soxla ci contexte kon doo wax ëxlaa moo gën a cher danga naan ala ah moo gën a kowe minal jalam ci weer su boobaa ci lay baaxee gis nga ko ok ba kon nag mbokk yi bayit baa ngi noonu léegi nag bu ñu demee ci baat yi asdaaf yéen ñooñ daara ñëpp xam ngeen jam u sadaf la sadaf xam ngeen lu muy firi moom mooy loolu ñuy wax xilaafu lu'lu li nga xam ni moom mooy muur wurus xam ngeen ko su ko defee nag tabaarakallah durra itam xam ngeen li muy firi jamcu durratu la am na ñoo xamante ni bii ni durar moom la def muy jamcu bi durra nekk mufrat mi moom al moom mooy al lu'lu'ul azima mooy wurus woo xam ni wurus wu piiri la jalam xam ngeen ko mooy alqamar bii firi weer kon tabaarakallah Sidaaj Malik nag nee na yaa ghaisal bahri yow bu mu ci nuuraan géej muy géeji xam-xam yow ma cay nuur lil asdaafi ngir mën caa génne ña nga xam ne ñoom ñoo ëmb wurus waaw di yonent bi alayhi salatu salaam ngir bëgg a xam maami yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye jaratu ko demal naa la géew waaw indiya nekk na fi man asdaafun mboole xeeti xam-xam yooyu danañu saytu fànnuk siira mën la caa génneel ci maami yonent bi lu kenn dul weddi nekk na fi man te sadaf yooyu ma lay wax nag bihaa nekk na ca biir durra wurus woo xamante ni bii ni ala moo gën a kawe minal jalam fii da nga siy dégg ni su fekkoon sidaaj malik radiallahu anhu eh, eh, eh, du ma wax bàkku ndax ñun suñu sëriñ moo ñu yee ci loolu daan wax sidaaj malik radiallahu anhu du wax wax bu nuroog bàkku waxuma laak bàkku du wax wax bu nuroog bàkku waxuma laak bàkku te li indi loolu mooy dafa am benn bés ñu di faral di wax naan correspondance yi nga xam ne ñoom ñoo bindante ak moom waaw ah, ñii waa Égypte ñii waa Misra ñii ñii ñii daan bindante ak moom ay lettres Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour mu daan tontu lettres yi ci mujj dundam moom Sidil Hadj malik ñu wax ni am bés mu tontu ba noppi pour ñu war a dem yóbbu ko ci barit bi mooy poste bi waaw ah, jamono boobu xaw ma poste amoon na wala déet xam na ay télégramme lay nekk Sidil Hadj Malick radiyallahu anhu dal di koy yiir loolu lañu ñu nettali nee nañu bi mu ko yëree mu daal di ni ko waaw nii de nga mën a mel ndax arab bi rafet na lool ndax man sa bay arab la te man sama bay ajam la man leen wax boobu wéru parce que wax boobu Seydi malik Malick mënu ko wax d' abord parce que malik du ajam arab la ni am baayam dafa jàng ah il faut que les choses soient claires aussi kooku benn beneen bi ci des wax ji xaw ma jaaxal ma dem laaj ko sama sëriñ daara alhaji malik Diop radiallahu anhu téere bii moo ma téere bi moom kenn jàngalu ko ko sëñ Babacar Seck ko jàngal alaaj Maamalo moo ko toppal te ñoom si rajo Malick moo ko jàngal noonu la leer na. ok ba ma dikkee xam nga lu ma wax. daf ma ni Ahmad d'abord si rajo Malick du wax wax bu nuroog bàkku waxuma la ak bàkku kooku mooy bu njëkk bi mu ne ma wax bi dañ ko ko askanale mais waxu ko. mané ko kuko wax muni ma mam qadi ma jaxate kala moko wax dom je mor sasum jaxate parce que dom je mor sasum dafa talif ab qasida ci sir Sidi tiyani rabbi allah anhu qasida bu rabit bu yeme bàyyi boo xam ne boo ko déggee daanu bàyyi bi xol ko yemu ba yag ndaysan dal ni ko ni nga meuna mel waji way ndax man sa baay arab la te man sa baay ajam la legi nak ba loolu amé ci la qadi waxé ni an nahwu wal arud wal bayan allamani asrarha ar rahman ki wax li meuna wax le an naxu fànnuk naxu muy grammaire wala arudu ak fànnuk arud muy muy muy euh, métrique xam-xam bi nga xam ni ci ngay sukkandiku pour mën a taalif ay bayit moom la ñuy wax arud mu ni wal bayaanu ak ak rhétorique muy muy xam-xam bi nga xam ni ci ngay saytoo fànni wax yi ak maanaay wax yi ak taari wax loolu la ñuy tudde balaaga mu ni àllama ni jàngal na ma asraaraha mbóoti fànn yooyu arrahmaanu yàlla mi nga xam ni moo ni arrahmaanu allama alquran moo ma ko jàngal ki wax lol nak xam nga ni mën na wax doomam ni ko way way yow ni nga mëna mel ndax man sa bay arab la te man sama bay ajam la non la mbiri tëdd si malik kon wax ji fi do ci deg loolu da nga ci deg rek ni dafa bëgg leral ak it bëgg jariñi allahumma yow bur yalla ñu ngi lay ñaan nga jëriñ ñu ci barkem mom cheikh alhaaji malik radiyallahu anhu nafaana allahu bi barakati waaw la tax da ngay wax ni eh, eh, kon nak biha nek na ci sadaf yoyu durratun wurus ak durra muy firi wurus hmm? ala boo xam ni moo gën a kawe minel jëlam gis nga weer ni mu kawe ba kenn mënu koo laal waxuma laa nga di fa yegg naan yaa ngi koy yàq man Serigne Malick sama liggéey bi kenn mënu koo yàq de ndax moo ko nag moo gën a kawe weer de jéem jéem ba jeex na takk moo tax man la moom ci ci mbindam danga ci ciy jàngate moo doon kan su fekkee am nga tuuti waaw waaw setal ala minal jalam da nga defee ni ah wer weer lan la wer mom mu yotu yotu it dara xol doog ngay def mu leeralal la après mu jeex <laughs> mais mom munoko ah, jeex na legi nak radiyallahu anhu muhammadun yanti Allah muhammad xamna buñ ko fi firi dañu fi fanan hmm. ah wa xalat na ko waye nak ñu leral ci tuuti rek ci batu muhammad gi dañu wax ni baatub muhammad forme baat bi li muy tekki mooy ku ñu bareel ak cant ci moom li may wax ku dem ci bugeetul mustafid li sharxi munyatil murid ca matalibu sabaya da nga ko fa fekk muhammadul arabi saixi dafa wax ni cheikh ibrahima shabraxiiti ba muy firi ñeen fukki xadis yooyu nga xam ne limaam nawawi moom la tànn ci wax yonent bi saa sallam ndax la yonent waxoon ku mokkal ñeen fukki xadis ci samay wax ëllëg yowmal qiyaama ma warlu la aljanna sama shafaa da nga ci bokk loolu tax mu tànn ñeen fukki xadis ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam tudde ko al arbaina nawawiya te limam nawawi kenn lam laameewul xam-xamam ci biir xeetu yonente bi alayhi salatu wassalam te mboonee la xam-xam bay bari bari bari quarante six ans la dund radiallahu anhu limam nawawi moo sharxa muslim muslim téere xadis boobu ngay dégg ñu koy wax muslim saxiixu muslim bi ngay dégg limam nawawi moo ko sharxa quarante six ans la dund radiallahu anhu mu tànn ñeen fukki xadis yi wax yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di koy teg léegi nag cheikh ibrahima shabraxiti bi nga xam ni moo doon tafsir ñeen fukki xadis yooyu nag daf caa firi baatub muhammad ca la wax ni muhammad siratun tufiidu lil mubalagati fi l mahmudiya baatu mahmud li muy tekki mooy ku ñu sant léegi baat bi nag su fekkee da nga ko bëgg a indil benn li ñuy tuddee une forme absolue forme bu jotal bo xamni ni fa fa la yam manam euh, kuñu ñu sant sant goo xam kenn meunatu la sant sant gu way wessu gogu cant su boba mahmoud ji day soppeku da ngay wax muhammad moy forme absolue ci mahmoud di nga wax ji mm, mahmoud kuñu sant mm. léegi nak ku ñu sant sant la sant la sant gu jot ba toy xaat lolu moy muhammad loolu moy waaye nag moom yamul foofu moom Cheikh Ibrahima Chabraxi ci daf ci dolli ni Mouhamad ji it am na ñooñ dañ ko def sigle miim gi daa am fu mu taxaw xaalonk gi am fu mu taxaw miim gi ci topp am fu mu taxaw deel gi am fu mu taxaw loolu marqumun fil kutub dégg nga mu ni miim bi ci gàttal daf ni minnatuna ala al muminina bihi yonent yàlla Mouhamad xéewal la ci ñi ko gëm moo tax baatub minnatun miim moo ci njëkk muy minnatun ala almuminin alquran wax na laqad manna allahu ala almuminin is baasa fihim rasulah dëgg-dëgg man bur yàlla xéewale naa ci ña nga xamante ni bii ni ñoom ñoo ma gëm lu tax ba ma jëlee ndaw lu bokk ci ñoom yabalaat ko ci ñoom mu yonte yàlla muhammadin alayhi salatu wasalaam ñu ne xaaji mooy xukmuhu bayna alxalaiq moom yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki nga xam ni mooy atte diggante minda fooni yàlla yi xoolal xoolal xam nga damay bañ mu yaatu ba mu ëpp mais gis nga yonent yonent saa salaam yàlla daal kenn xam xool yonent yàlla dafa wax ci alquran ni yonent bi alayhi salaam wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humu zalimun wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humu alkafirun wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humu alfasiqun képp ku atte woowul ci li ma wàcce man yonent bi alayhi salaat man yàlla subhanahu wa taala yow dong yaay ki génn ak topp fasiq nga képp ku atte woowul ci li ma wàcce man yàlla subhanahu wa taala yow dong yaay kiy bokkaale muy zalim yaay kiy tooñ ndax boo gisee baatu zalim mi firi bokkaale dañu inna shirka la zulmun azim inna shirka la zulmun azim bokkaale ak tooñ la moo tax baatu zulm boo ko fekkee ci alquran da koy firee bokkaale inna shirka la zulmun azim kon inna zulma la shirkun azim alquran noonu nga koy déggee fa inna maa al usri yusra kon fa inna maa al usri yusra noonu nga koy déggee waaw kay mu jeex léegi nag yàlla subhaanahu wax ci alqur'an nii képp ku atte woowul li ma wàcce man yàlla subhaanahu wa taala yow rek yaay yéefér ñu ni ko ñun nu ni atte woo ñun amul maqaam ab atte mu ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa an ixkum baynahum bima anzala allah cëm yàlla daal ni muy waxee dafa yéeme wa an ixkum ma ne yow yonent yàlla muhammad na nga atte baynakum ci seen diggante ñoom mindeef yi bi ma anzalallah ci li yàlla wàcce subhanahu wa taala moo tax yonent bi bi muy doog a jugee Màkka dem Madiinatul Munawwara bi ñuy tabax néegam boobu muy muy muy muy muy muy masjidul rasul benn waay bu sonn ndeysaan jël yére weer ko keneen di sonn moom it daal koy jël njëgënaayoo kooku wóor ba sonn yére bi gisu ko fekk waa ji njëgënaayoo ko coow li jóg ko wallaay sàcc ma dama ko fekk fee rek ñu ko yonent bi ñëw waa ni non baal naa ko sax damaa xaw dama yaakaaroon def ko jël wala dara yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen taafu qabla an yasula تعافوا baalanteleen qabla an yasula alxabaru ilayhi balaa information bi di agsi ci man ndax bu xasee agsi ci man fa innii man yonent laa ataraddadu du ma déng-déngal an xududillah ci digg yàlla yi yàlla moo mën naa atte baye boo ngeen baalante balaa xibaar bi di agsi ci man bu xasee ba agsi ci man la yàlla wax laay def de kon xaagi mooy xukmuhu bayn alxalaayiq sallallahu alayhi wa sallam beneen miim gi nag mooy mulkuhu alladi aataahu llah walam yucta li ahadin qablahu wala baadahu mooy nguuram gi nga xam ni moom la ko borom bi tabaraka wa taala méng te musu koo méng maanaam musu koo jox ña ko jiitu te du ko jox ña ko mujj amul weerante xam naa sa xel dana dem ca nguurug Qaaruun ga ba nguurug Suleymaan ga mbaa Daawud ga déedéet ñooñu amuñ nguur lu tax zawal na dem na waaye nguur gi li annahu tabaraka wa taala qarana smahu bismihi haythu qaal la ilaha illa allah muhammadun ndax yàlla moo jël aw turam lënkale boole tur yonent bi alayhi salatu wasalaam buntu aljanna luñ fa bind la ilaha illa allah muhammadun rasulullah saqul arsh poto yi tee arsh luñ fa bind la ilaha illa allah muhammadun rasulullah waaw ay ca nguur gaangoogu te yooyu duñu dee abadan bis bu nekk nga dégg ca soroor ya ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa rafa'na laka dikrak wax jangok ngur gangok nak legi nak muy del gi nga xamni moko tëj muy dalilun lil khalqi ala al xaqi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ki tektal jam ñep deug te deug modi yàlla subhanahu wa taala fa dhalikum allah rabbukum alxaq fa maada baada alxaqi illa dalaalu fa annee tusrafun fa allahu huwa alxaqu walxaqu huwa allah kon yonent bi mooy muhammad foofu lañ ciy yemandi ba ñu àgg ca buntu buntu buntu bu njëkk ba nag waaw ca wa abdu muttalibin min baadu marraja buñ ci àggee dinaa ñëwaat ci Muhammad ji incha allah mu ni Muhammad moomu waxul ibnu abdillah de bu ko firee noonu du baax di te bu ko waxoon it bayit bi du dam day jub waaye taxul mu wax ko de daf ni muhammadun nuuru abdullahi ndax sidaaj malik naka jekk afa ay waxam dafay am cohérence lan la waxoon waxoon naa la ko xilaasul bayit boo fi gis am na bayit bu ko jiitu signalé ko bu yàgg yaa ci dul bàyyi xel lillahi nuurun la wax yakunu llahu mudiahu abal wara tahiran fi tahiri shiyami lillahi maa ngi yéem yàlla nuurun leer goo xam ni yakunu llahu mudiahu yàlla dañul di dénk leer ga abal wara tahiran bàyyi mi fi leer ga di set fi tahiri shiyami waay waay kon comme leer la tudd moo tax fii du la wax ni la muhammadun yonent yàlla muhammad ibnu abdillah mooy doomi abdallah yi ja déedéet la na ca abdallah ba tax ñuy wax abdallah yonent bi la sallallahu alayhi wa sallama te loolu du dara lu dul leer ga moo tax da ngay wax ni muhammadun yonent yàlla muhammad nuuru abdullahi mooy leeri kooku nga xam ni mooy sayida abdallah bi baayam danañ ñëw ci moom abdallah moomu baayam moo di cheybat alhamdi danañ ñëw ci moom cheybat alhamdi hachim mooy baayam danañ ñëw ci moom hachim abdou manaaf mooy baayam abdu manaaf maa qusayhimi qusay ay baayam qusay kilaab mooy baayam kilaaba kilaab murrata mooy baayam murrata kaabu mooy baayam kaabu luway mooy baayam luway gaalib mooy baayam wa gaalibin mu ngoog wa fihrin fihr mooy baayi gaalib wa malikin malik mooy baayi fihr nadrinil karam ak nadr moomu nga xamante ni bii ni ku tedd la moom mooy baayi malik mu ni nag nadr moomu kinaanatin mooy baayam kinaanatin xuzaymatin mooy baayam wa xuzaymatin kay واو خذيمة هو مدركة مدركة موي بايم مدركة إلياس إلياس موي بايم جانجن كو وفي صلب إلياس يلبي ويسمعه المواسم بلزيني إلياس مو مدر موي بايم مدر الحمراء مدر مغا خمني دفا ويخون تل رفتون لول نخ باتو حمراء دينا جي نيو دينا كو فيري سرهيمي كان خمني موي سين سكري دفا أملا لو دخ موخو دينا جي نيو nee na nag mudar moomu kan mooy bàyyi mu ni nizar moo tax mu ne addit limaadeel ca maama yonent bi alayhi salatu salaam nizar nizar mi nga xam ne mooy bàyyi mudar maadan moo ci tegu maat mooy bàyyi nizar man képp koo xam ni nag yu jaawizu jéggi na romb na na adnaan mi nga xam ne mooy bàyyi maat kooku fa takdibuhu nee na ak kàccam aku kàcciloom xat jaa dikk na minal alami tukkee ca ka nga xam ni mooy drapeau booy flotte ci biir xadara suñu borom ba di yonte yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndax moo waxoon kadaban nasaabuna man jaawaza adanaana léegi nag mbokk yi nee na képp koo xam ne da nga may askanale di tudd samay maam ak samay baay borom bee adnaan loo waxati du dëgg ndax diggante boobu yahut ak nasara dañ faa dugal seeni maam jaxase ko moo tax du leneen loolu rek la léegi nag mbokk yi ñu dem ci détails yi Muhammad moo di Nuuru Abdullah kan moo doon Abdullah hmm? waaw kay baatu abdullah d'abord li muy tekki mooy alxaadiu azzalilu lahu taala mooy kiy toroxlu ki wàcce boppam sippi lépp lu mu am ci daraja mba yëgatu ko ci digganteem ak boroomam tabaraka wa taala kooku mooy baatu abdullah dégg nga de mu ni waqat jaa a dikk na ci xadis yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ahabul asmaai ila llahi abdullahi wa abdurrahmani lii may nettali bu ngeen demee ci siratul xal bii da ngeen ko fa fekk siratul xal bii nag dafa nekk téere boo xamante ni bii ni nag dafa siiwe siiratul xalbi waaye téere bi dëgg dëgg dëgg ni mu li mu li mu ni mu tudd mooy as siiratul xalbiya fi siiratil aminil mamun te ki ko liggéey ñëpp xam nañ ko tabaraka wa taala te tabarakallah mu ni ahabul asma tur wi gënal yàlla ci tur yi mooy ilallahi ca yàlla tur wi gënal yàlla ci tur yi tur wa gën fa yàlla moo di abdullahi motax yàlla tanal tur woowu baye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah jamu bi yàlla bi wa abdurrahman ak batu abdurrahman jami bur yàlla ki nga bur yàlla mi nga xamni tabarakallah moy ki fess del ak yërmande arrahman lol lay firi mu ni itam ñëw ci hadith batay tey ahabul asmaai ila allah ma tu'badu bihi nee tur yi gënal yàlla ci tur yi moy tur yi nga xamanteni bi ni mom lañ koy jaamoo tax ku ne xamna batu batu tu'badu bihi batu abd ci la jóge في في رجام لول ما تخمني وقد سمي بعبد الله في القرآن مم يرنتي صلى الله عليه وسلم يلا تدينك عبد الله تبير القرآن تا القرآن تروه في يلا جف يرنتي بي دفا فكني تروه موغن أفروبري أكلا مكسونو بروم ndax yalla namu tollu turu toll non lay jox yenenbi bi alayhi salatu wasalam lolou motax bi mi wax ak mom ci alquran nga deg qala allah ta'ala wa annahu lamma qama abdullah skay te fekk abdullah ba ñu seetee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la di nga yisit ci alquran alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba ma ma waxal yow yonent bi deug sant ñeel bur yàlla mi nga xamni mo wacc ci alquran ci jaamam bi yonent yàlla muhammad mu abdullah سبحان الذي أسرى بعبده كون نك بوكي عبد الله ينجوك موم موي باي mooy بي عليه الصلاه والسلام عبد الله موم نك داني واخني كان مودون بايام moo مالك ني محمد malik عبد الله الشيبته léegi nag sheybatal xamdi mooy lan dañu wax ni sheybatal xamdi li tax ñu tuddee ko ko li kasrati xamdi naasi lahu dafa baaxoon daan defal nit ñi teraanga ba nit ñi bare luñ ko daan sant lool lool lool tax ñu tuddee woon ko sheybatal xamdi dégg nga wax ji li annahu kaana mafdaa qurayshin fi lnawaa'ibi wa maljaahum fi lumuuri fa kaana sharifu qurayshin wa sayyiduha kamaalan wa fiaalan min gayri mudaafiin boroom siral xalbiya nee na gis nga kii nga xam ni moom la ñuy wax cheybat alhamd dafa nekkoon koo xam ni waa quraysh muy giir quraysh fukki giir lañu ñoom yonent yàlla muhammad giir gañ ca bokk mooy banu hashim موم عبد المطلب مين يوخ ولا بوك شيبة الحمد مين يوخ مودن مفزع قريش مانا مودن لقوا يوا قريش بنيو تيتان مودن دان لق في النوائي بيتي قيو قيو ينغا خمني بواتي دي تيتل نيب ومال جاءهم مودن سين وير واي في الأمور تيمبول مبيري فكان شريف قريش مودن كيغا خمني موي تدنغ وا قريش قريش نيفا نيك اي اشراف باري نان واي نيوم نيب كي نيو ياكارون بنيو جاخلي ديم تا موم موم مودن شيبة الحمد وسيدها مودن سانغوب بر وا قريش كمالا وفعالا dafa dafa nekkoon nag sang boo xam ne dafa mat ci jikko waaye mat ci jëf min xëyri mu daafiin te jamono jooju kenn xëccoo wut ak moom càng googu ndax nam ca lam ca meloon ak lam ca amoon kenn amu ko ci waaw kay kooku mo doon shaybatul hamd am na waxe waxe wax nañ ni it lu tax ñu tuddee ko baatu shaybatul hamd lu tax limaada summiya shaybatul hamd shaybatul hamd lu tax dañu ne li annahu wulida wa fi rasihi shayba dafa juddu ñu fekk ca bopp ba ay bejaaw waaw wa fi rasihi shayba am ñeneen ñu ni ay wa fi lafdi kaana wasata rasihi aw wasatu abyad moom shaybatul hamd digg bopp bi moo weexoon am ñu ni déedéet li tax ñu tuddee ko shaybatul hamdi loolu tafaul la tafaul mooy moom mi nga xam ni borom bi jaaw bu santu bi la lañ ci namm dañ ko koy wax ngir ñaanal ko yàlla mu gudd fan ba ba jaaw loolu la ñuy wax tafaul tafaawul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko keroog ba nga xamante ni bii ni loolu la ñuy tuddee eh, eh, sulxul xudaybiya keroog ba nga xamee ni waa Quraysh mhm. waxtaan nañu ci seen biir ba war a signé accord bi nga xamante ni bii ni moom la ñuy tëral ci seen digganteeg yonente alayhi salaatu wassalaam ndeysaan cey wàjile kan la yabaloon yebaloon suhaylu bunu amr mhm. yonent bi bi mu séenee Suhayl muy ñëw mu ne ah suñu mbir nar naa yomb ndax ya son taala gis nga ki mu dogal mu ñëw bayiko ca quraish moy Suhayl ibn Amr Suhayl moy lu ñu yombal kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana jëfandikoo loolu ñuy wax at tafaul loolu motax Abdul Muttalib bi ñu daan wowe Shaybatul Hamd lutax dañ ni Shaybatul Hamd di tafaul la ñu ni tafaul la dañ ko doon ñaanal yàlla subhanahu wa taala bi annahu sayablughu sinna shayb ñaanal ko yàlla mu gudd fan ba am ati bejjaaw mu gudd fan ba am ati bejjaaw am nañu ni kon Cheybat alhamdi ji tafaul la ci moom borom siir alxalbi it nee na qiila ismuhu aamir am nañu ni turam dëgg-dëgg aamir la du du abdul muttalib du Cheybat alhamdi mais aamir mooy turam ñaata at la dund moom Cheybat alhamdi borom siiratul xalbiya nee wa aasha mia arbaina sanatan dund na téeméeri at ak ñaar fukki at moom Cheybat alhamdi cent vingt ans te ku ne xam ne 120 ca la muy dellu makiinu la mooy kii firi ak jàppandal taamu bi firi aw ñam loolu yëpp soo ko xoolee 120 la nee na itam bokkoon na ci ay jikkoom moom Cheybatul Hamdi wa kaana min man xarama alxamra ala nafsihi fi ljahiliya moom Cheybatul Hamdi dafa bokkoon ca jamonoy jahiliya ca ñooñu nga xam ne dañu xaraamaloon sàngara ci seen bopp sàngara ci jamono jaahiliya dagan na parce que ab texte bu koy bu koy bu koy tere wàccul waaye moom da ko xaraamal ci boppam gis ngir gis sàngara ni muy jeexitale ci nit tu as vu moom Cheybatul Hamd wa kaana mujaaba daawa mu nee na itam dafa nekkoon koo xam ni ku ñu nangu ak ñaanam la bu ñaanaan yàlla day nangu waaw ba ñu dem ci buntu ñeenteel bi rek ca ca yaaway la abrahatin ja di leen xam ni eh, sidaaj lu mu wax am na wa kaana mujaaba daawa maa la ko wax moom Cheybatul Hamd كندا ننغو أغنانم لا وكان يقال له الفياض لجوده موم دنكو دان وي باتو فياض موي كو خامني دافا تابا تابا تابا تاب دي ملني انونداسيون تاو بوي خبو لوتاخ ندخ نامو تابي وون موم شيبه الحمد يونتبي عليه الصلاه والسلام نيمو مل دكو نامبو دي مبوكي نانين كو خامدي بنن بيتي ناسي تام ومطعم الطير ومطعم طير السماء لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحش في رؤوس الجبال moom Cheybatul Hamd daf daan dafa dafa nekkoon koo xam ni dafa bokkoon ci ay jikkoom da daan lele picc asamaan yi daan leen jox ñu lekk da daan defar ñam wu baax def ko ci ndab lu yaatu dem ba ca kaw montagne mu teg ko fa ngir picc yee ñëw di ca lekk xam nga ni ku dem ba bàyyi xel picc yu naaw ci asamaan nga di leen lele wallaay doomu aadama yi nga dëkkandool safuta wax kooku fa min baabi ahra ndeysaan dégg nga ko de naka noonu njaay àll yi muy rabi àll yi daan na leen jox ñuy lekk moom Cheybatul nde نينا يتم موم شعيب الحمد وكان من حلماء قريش وحكا وحكمائها موم موم موم شعيب الحمد دا فا بوكون تي نيغا خامني نيو اوبون ساغو تي وا قريش باسكو ساغو يوم بول بوكي xam nga benn xaleel mës na koo def hmm. donn nguur ci baayam dem fekk xaritu bu xaritu baayam ki nga xam ne moo gënoon a xaritoo ak baayam xamal lépp baayam doon buur bi génn àddina moom doom yi nga xamante ni bi ni c'est le renouveau roi maintenant bi mu dikkee ni ko damaa bëggoon nga am rek loo ma loo ma loo ma wax ci sama baay loo xam ni dina tënk léppam mu ni ko benn baat laa lay wax ci sa baay il était inébranlable in nu ngi koy waxee sax inébranlable inébranlable effectivement inébranlable noonu la ko waxee mooy xaliim mooy ku am sago koo xam ni dara du ko dépassé dara du ko ébranlé lu ñëw mu traité ko ci sago ba xam fan la cee jaar loola jeex mu continuer abdul muttalib bii ñuy wax chebat alhamd di maami yonente bi alayhi salatu wasalaam yëgal ni noonu la meloon naka noonu wa xukamaa iha bokkoon na ci ñi nga xam ni ñu ëppoon sagesse muy xam-xam boo xam ni nit du ko jàng ci téere yàllaa ko koy eh, ilham bokkoon na ci ñi ko ëppoon ca giiru quraysh moom moomu di chebat alhamd am nak ben ben lu am solo lu mu netali fi te modi mom abdul mutalib e ndeysaan dafa dafa dafa amone ko xamni dafa dan nanando ak mom manam du dan waxtanando ak mom parce que baatu nadim ko daan toogandoo la ngeen di waxtan di nanando lu melni so wala ataya deng nga am na koo xamante ni bii ni ñoom ñaar rek dan nañ toogandoo jamono bu nek ñu ko doon wax Harb ibnu Umayya ibnu Abdi Shams ibn abd Manaf walid Abi Sufyan xam nga euh, Abu Sufyan ibnu Harb ngay dégg mhm. Harb boobu nga xamante ne bii ni mooy bàyyi Abi Sufyan mhm. moom la ñuy wax euh, Harb ibnu Umayyata ibnu Abdi Shams ibnu Abdi Manaf walidu Abi Sufyan mhm. moom moomu nag daf daan toog ak Abdul Muttalib mu chebat alhamd ca biir Kaaba ga ca daaru nadwa ñu daan toog daan waxtaan nekkoon ay wólëre nekkoon ay xarit te ci jamono boobu kat chebat alhamd dafa amoon benn yahud boo xamante ne bii ni kaana fii jiwaarihi maanaam dafa nekkoon ci protection nekkoon ci kaaraangeem donte yahud la bokkul ci quraish waaye Cheybatul Hamd daf ko daan protéger daan ko toppatoo daan ko lijjanti bëggul dara manqué ko dégg nga ko waaye nag fa agrada dalika alyahudi alqawla ala xarb fi suuqin min aswaaqi tahaama fa agra alayhi xarban xarb min qatlihi benn bés ndeysaan ñu dem ca tahama benn marché boo xam ne marché hebdomadaire bu fa daan am la xarb bii nga xam ne moo daan toogandoo ak Cheybatul alhamd ñu daan waxtaanandoo kii nga xam ni moom mooy euh, euh, yahud bi nga xam ni Cheybat euh, alhamd moom moo ko daan protéger mm, gàddu léppam ci gàtt ci gàttal garantie moo nekkoon garantie mm-hmm. ndeysaan wax ak xarb wax bu xaw a dëgër wax bu xaw a diis ca marché ba mm-hmm. loolu daal di metti xarb mu daal di digal ay nit ni nañ ko rey nañu rey yahud bi gis nga keroog bi ñu reyee yahud bi ci tàng-tàng bi abdul muttalib mu Cheybat alhamd mbaa mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko déggee ci tàng-tàng bi borom téere bi nee na walam yufaariquhu xatta axada minhu miata naaqatin dafaaha libni amni lyahudi xifdan li jiwaarihi ci tàng-tàng bi dafa jubali ci ki nga xam ne moo di Harb ibnu Umayyata ni ko du ma la bàyyi du la may jàmm fekk génne woo téeméeri gëléem nga teg ko ci sama loxo ma dem ba ca fa yahud ba dëkk ma jox ko ay mbokkam pour que ñu xam ne noo seulement jot naa bakkanam waaye protection bi nga xam ne moom laa moo doxoon sama diggante ak moom assuré naa ko même buñ ko rayee wax la ko ba mbokk yi responsabilité yombul de loolu nak mbok yi ci gàttal mom lañ leen di wax ci koku nga xamni mom modi moo di Cheybat Alhamd incha allahu bu ñu dellu si danañu continuer ci mom parce que mom dafa am solo ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam il faut que ñu xamle mom mo doon kan ndax dafa yar yonnati bi ba yonnati bi am juróom-ñetti at mu am lu bari lo xamni daf ko jeexital ci yarub yonnati bi ta nonu nu mu meloon na mom motax mu meuna yaré nonu yonnati bi alayhi salatu wasallam bu ko defé mbok yi ñi ngi daaneel fofu suñu kaddu eh tabarakallah di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal nu tawfiq ak taysir tabarakallah bu ko defee bu ci amee lenn loo xamante ni bii nii nit bëgg na cee waxtaan ak ñun aussi tamit mën nañu woo ci 77 102 32 24 insha allah allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaqi bilxaqi والهادي إلى صراطك wa ala alihi حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علينا وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين